Papa Thiam yaay jéema looy sa yaay bi ko sama sa yaay ma sunu sunu doon doon alu dul nam ci dari jéema loon waaw gars yi saa nag li ngeen gis nag mooy deuxième partie bi waaw li ngeen gis ni mooy deuxième partie bi première partie bi romb na ni mooy deuxième partie bi kon ñu dem sana aje kaga bala mai sana wa pikin waaw gars yi ci deuxième part bi ci deuxième part bi ci deuxième part bi di maa ngi ziar ñëpp abu nuyu ñëpp nag am na loolu loolu Aboubacar ndeysaan jaaroon na fi léegi maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax maa ngi ziar bu baax a Aw di ziar les téléspectateurs du Domingo TV international su ma tuddee ñooñu nag dina soxna Nabu soxna Nabu Guèye maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax soxna Nabu Guèye ngi koy ziar bu Abdoulaye Guèye. di ziar nag Aïcha ay Aïcha maa lay ziar bu baax baax a baax borom Diourbel da wax nuyu ma maire bi da wax nuyu ma ñëpp soxna Aïcha Dieng maa lay bu baax a baax xam naa moom moom chaîne YouTube bëgg Ndongo TV international rek de seetaan may wax tamit encore une fois ni gars yi lii nag mooy deuxième partie bi première partie bi léegi ñu ko def ne première partie bi macha allah nee na trop xam naa ne képp ku dugg YouTube rek. boo fekkee première partie bi ak deuxième partie bi rek boo saanee boo saanee deuxième partie bi ba pare rek na nga dem xoolee ci première partie bi parce que ñaari vidéo la muy première partie bi ak deuxième partie bi day siyaare ñëpp xam naa am na ñu woote xaaral ma xool ma xam dina dina intégré wu. xam naa bu amee tamit bëgg dugg ci online bi rek bu defee demande de vidéo ma jël ko Modou Asta Ndiaye Modou Asta maa ngi online bi. di mi tamit ni à l'instant nag xam naa ñu ngi suñu deuxième partie wu émission xam naa fii ñëw après jeexal muy bëggee gars yi tey nag ñëw teg ay son Ndongo Lo ak yéen ci seen émission Ndongo ba faw ci chaîne YouTube di chaîne YouTube boobu Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo la chaîne télévision sur tous les coins cardinaux l'est l'ouest le nord et le sud quand c'est important c'est sur la chaîne télévision bëgg Ndongo TV international la may bàyyiwuma kenn daal di wax tamit ndeysaan seen émission Ndongo Lo ba faw mi ngi noonu seen émission Ndongo Lo ba faw nag chaque dimanche rek lay faral di am ci heure bi ci waxtu wi la même lieu di chère boobu Ndongo macha allah deux na def ñu seen émission Ndongo Lo ba faw parce que nekkoon ay xaxat ak tamit li te jamono ji moo taxoon def ñu seen émission mais macha allah feeg yàlla ñu ngi koy mën loo chaque dimanche ñëw defal leen seen émission Ndongo faw Pape Doudou Ndiaye maa nga dégg bu baax a baax Ndiaye jaata waxtu bi nii à l'instant ni ngi ci deuxième bi première partie bi léegi la dagg parce que dañuy live muy dagg mais nag dama bëgg nag suñu live te nag ba def première partie ak yi yéen ñuy suivre tamit chaîne YouTube International ni ngeen di seetaan nii nii deuxième bi ba mu jeex su ngeen paree tamit bi mën ngeen ko am ci chaîne YouTube Bëgg Ndongo TV International bu ngeen demee rek da ngeen di cliquer première partie bi ngeen seetaan ba jeex après ngeen ñëw ci deuxième bi ngeen seetaan parce que première part bi macha allah neex na mais wax tamit nii képp ku ma bëgg a oo man nga ma def demande de vidéo d'intégration vidéo ma accepté la nga dugg ci biir live bi ñu jàkkaarloo waxtaan waa xam naa am na mu wax ci def demande sax Modou Asta Modou Asta Modou Asta pipin yaay pipin yaay suma bee ma waaw Modou Asta dèjà ma dem jëriñu ko Modou Asta Ndiaye Dia Modou Asta Ndiaye Dia ma leen jëfandikoo dégg wax ni gars yi mën ngeen def ko Modou Asta rek def seen demande de vidéo ma accepté ngeen dugg ci biir live bi ñu waxtaan